Bienvenue sur Salam Vision. Lamin mooy sama gër هذا رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان متبسما فرحا بصف ملائكي بسط إليك أكفهم بتفاني يتلكنون صلاتك الأزمى التي سرين شيخنا ما بعد للجنس من قرباني والحور من بين النوافذ في الحمى متفرجات فيك كالولدان وعليك برد حتى ذاك محمد في الموقفين به وفي الإعلان وكي السلام عليكم يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان متبسما فرحا بصف ملائكي بسط إليك أكفهم بتفاني يتلكنون صلاتك العظمى التي سرين شيخ ne ما بعد للجنس من قرباني tey ji toll ni yow tey ñu gis la tey ji ci biir fii mbégte gi tey lan la tey suñu papa di gërëm yàlla bu baax yàlla mi nu mayoon daaw nu fekk ko ren nu fekk ko lii lépp nag gannaaw yàlla ak yonant ba ak rasulullahi ak Cheikh Sidi Alhaaji Malick kenn def ko kudu Seydi Abdou Aziz lii moo ko sos à travers le senegal ba fépp tey bisu àjjuma bu lii xew def ci roy baayam nag Sidi Boubacar daf ci rooy maamam Cheikh Seydi Alhaaji Malick ba su fa àjjuma Sidi Boubacar ak Cheikh Seydi Alhaaji ak El Hadj Mansour El Hadj Abdou El Hadj Habib lool ak seen i jaboot lii nag Seydi Abdou Aziz Sy Al Amine la. alhamdulilah kon am nañu mbégte ci yow. alhamdulilah merci beaucoup jërëjëf. yaakaar naa ne xool seddati na yéen a ko gisoon suñ papa ngi noonu di wàcce oto bi mu ngi noonu di wàcce oto bi ah suñu papa ngoog suñu papa El Hadj Mansour El Hadj Mansour ngoog mu ngi noonu di waaxu di dugg ci biir. waaw mbokk yaa ngi noonu di koy yenu di ko yóbbu noonu ci biir ah macha allah suñu papa alaaji Mansour Mbaye duggee ci biir bañ ko dékkee micro mu am kàddu yoo xamante ni yëkkati ko ci bis bi tey jii dañuy delluwaat tamit ki ñu gis nii xam naa ne kenn dootu ko présenté ci biir Sénégal yaa ngeen koo suivre fi nga xamante ni moo di ci biir Salam Vision papa ñu ngi lay ziar waa ñu ngi leen di ziar bu baax waa Salam Vision waaw di rafetlu seen teewaay tey ci Pikine fii ci stade Amadou Barry muy bis boo xamante ni chaque année dañ koy organiser ci njiitalu ki nga xam ne mooy Moustapha Fata Sarr muy koo xamante ni wax dëgg yàlla Pikine waxuma sax léegi Pikine damay wax national bi yëpp wax dëgg yàlla soxla nañ ko te am na taxaw bu am solo bu taxaw ci diine ji ndax xadaratu jumaa bi nga xamante ni moom moo koy organiser chaque année mu dem ba national léegi dafa dem sax ba dépassé national muy gis bu rafet boo xamante ni jullit yàlla yëpp ñëw fii teew rawatina ñi nga xamante ni moom mooy tarixa tijaaniya di sant bu baax nag di bi yàlla may ñu fekkewaat koo ren fas yéene ko teewee muy bis la boo xamante ni ay ñaan lañ ciy def ngir umma bi yëpp muy loo xamante ni mën nañ ciy dëxëñaale soxla yi yëpp tàmbalee ko ci son excellence de président de la république gouvernement ak mbooleem kilifa diine yi nga xamante ni ci biir Sénégal di leen sant yéen tam Salam Vision seen taxawaay ndax euh, ay fani fan lu jiitu tey yéen a ko doon préparé def ay interview di dugg ci dëkk bi xeebu leen suñu jëmm ngi ñu agsi ngeen interview yi ñu tam jox suñu xalaat bon ñu sant yàlla ginnaaw bi ñu sant yéen sallallahu alayhi wa sallam di ah, gannaaw gannaaw a gis loolu ah, xam naa ko dañ lay bàyyi rek nga dugg ci parce que am na ñeneen ñoo xam ne gis nañ leen si kàttu suñu borom incha allah ah sama maa ngi lay seet haza rasulullahi yawma nuzulihi mutaqallidan bil haqqi wal burhani mutabassiman farhan bi safi malaiki basatu ilayki akufahum bi tafani yatalakkanuna salatakal uzmallati Serigne Cheikh ne ma baada lil jinsi min qurbani wal huru min bayni nawafizi fil hima mutafarrijatun fika kal wildaani wa alayka burdun xat kazaaka muhammadun fi lmawqifayni bihi wa fi l ilaani waa kay salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen ziyaar di leen ndokkele ci bis bu tedd bi ci ngoon gu tedd gi ci bëccëg gu tedd gi nga xamante ni si nitu yàlla ba ki yàlla baaxaloon Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine moo ci joxe woon ndigal jox ko Mouhamadul Fata Sarr ne yéen ndawi jeunesse Tidjane yi tuddee naa leen abnaawu hadrati Tidjane yéen ñi nga xam ne yéenay doom yi Cheikhuna Tidjane ngir ngeen amal jotaay boo xamante ni si benn ngoonu àjjuma lay doon képp kuy njabootu taalibe Cheikh rek daje si di ci bakk yàlla di ci bàkk yonent bi sallallahu wa sallam loolu nag moo jur jotaay bi nga xam ni wax nitu yàlla du toxu waxu nit yàlla day dund kon bu ngeen ñëwee couvrir ko ñëw ngeen fi ngeen war a ñëw yéen ñu ngi leen di gërëm seen taxawaay di ñaan yàlla dëkk bi di Sénégal ak dëkk yi ko wër yàlla na ci yàlla def jàmm sunu njiitum réew Macky Sall yàlla na yàlla guddal fanam ñi nekk si opposition bi itam yàlla na yàlla taxawu leen ba li nga xamante ni si que mooy jàmm réew bi yitteel leen li nga xam ne mooy dara réew mi yitteel leen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilah yéen a ko gis euh, moom ndax ku ko dégg dégg baat bu neex ba ci moom. yàgg dañ koo fekk fu ne mu yàgg téye baat boobu noonu di ko yëkkati di ko sante ki nga xamante ni moo di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ci kanam rawati bot man ak yen ba ci kanam tuuti ma wan leen lu ngeen mu seggi si kattanu yàlla fi lay xewee ci biir si stade Amadou Barry ba léegi ñu ngi ci bis bi yéen a ko gisoon Aziz Alen Ndiaye tey moom lañ taxawal Aziz ñu ngay si waaw salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu mbokku taalibe di nuyu mbokku xadara bi yëpp macha allah tey ji ñu gis sa euh, taxawaay ñu gis sa euh, euh, jëmm ju mag yi nga xamante ne tey ji téye na fi nga xamante ne moo di si stade Amadou Barry tey ji ñu war a waajal ngoon gi tagg ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam tey Aziz Aly Ndiaye tey ji ñu gis ko tey ji mu ñëw tey bokk ci biir bis bi ba mel ni moom jëmmam am na feneen foo xamante ni yeggu fa te teewul tamit moom mu ñëw wàcce boppam ànd ak nit ñi bokk ak nit ñi tey ji bis bi tey ji taxawaay bi nga xam ne taxaw ngeen ko ci tey lan la waaw alhamdulilah sant yàlla bu baax xam nga lu mel nii moom mënuñu koo wuutee ndax ñun ay taalibe sëñ Abdou Aziz Al Amin la te lu mel ni sëñ Abdou moo ci joxe woon ndigal euh, ndigal lool nag ñun ñëpp ci la ñuy topp ànd ci ak suñu frère suñu xarit Fata di ko jàppale ci liggéey bi nga xam ne ndigalu sëriñ Abdou Aziz Al Amin di ñaan yàlla rek yàlla na ci yàlla def barke yàlla def ci réussite. lii nag bu ñu ko defee mbégte la ak contentement en tant que ay taalibe Cheikhouna Tidiane bu ñu wooyee ci xadaratu juma dañu war bàyyi suñu lépp ñëw wax dëgg yàlla. alhamdulilah euh, am na loo xamante nag moom gëm naa ne du waxu fii mais loolu après incha allahu rabi dinañ ci def tam yeneen jotaay ànd ci ak ñenn ñi nga ci war a àndal allahu rabi ñëw ba ci yow toog ak yow waxtaan tam li jëm ci loolu waaye comme que nag tey ji bis bi la euh, li ci kanam rawati bët incha allahu rabi xam naa ko dañ lay bàyyi rek dañuy kàddu yi alhamdulilah yéen a ko gis Aziz Aziz Alain Ndiaye la mu ngi noonu di dem la ci kanam raw ci bët nee naa leen tey lu kenn mës a jël tey laa leen di wan. alhamdulilah ba léegi ah monsieur le maire monsieur le maire nag xam naa ne de dama koy bett waaye bettu ma ko nag parce que yaakaar naa ne bés bee ko laaj monsieur le maire maa ngi waaye yal na yàlla nangul ziar yëpp yal na yàlla nangul ziar yëpp. Euh, tey ji ñu gis sa teewaay fi nga xamante ne moo ji ci stade Amadou Barry bi tey ji taxawaay bi nga xamante ni incha allahu rabbi mbokk talibé yëpp taxaw nañ ko fi tey ji yéen bis bi nga xamante ni yéen ñii def ngeen ci li nga xam ne moom ngeen ci war a def taxawaay bi lan la doon waaw c'est normal c'est tout à fait normal parce que depuis ñu koy sos je me souviens jour ban koy soos man ak Pape Sagna Mbaye l'ancien maire de Pikine ak Badra Diouk ñoo àndoon ak euh, junior xalif général des Mourides des Tidiane ñu mu yëkkati trois millions joxe ko ne xaalis bi man maa ko moom man maa ko si dugal dina law dina law dina barkeel ba ëllëg si biir lépp lu ñu si soxla si tari tari Cheikh dina am donc je me souviens il plus de dix ans de cela donc xale bi tamit jàmbaar la vraiment li ko sëriñ bi dénkoon mi ngi si barki démb on s'est vu chez Modou man ak Pape Sagna gisee nañu ak moom vraiment aussi c'est à féliciter c'est à remercier parce que lii mu def nii tey loo yombul. parce que li fi nekk si doomu aadama ak fu nu jugee fu ne juge nañ fa affaire bi dem na ba dépassé ko moom donc ça veut dire que ne vraiment lislaam rek kay dëgg dëgg rek kay dëgg donc vraiment ñu defe ko Pikine defe ko dans notre département donc loolu si daf ñuy honoré dafay gën a ñaanal Pikine doole ñun autant que responsable ñu war si sant yàlla bu baax moo tax Ablaye Timbo le maire de la ville ak tous les maires d' arrondissement ak ak euh, Modou Gueye tey bu ñu patronné affaire bi directeur des impôts vraiment am nañ si mbégte bu baax a baax a baax baax baax. Ah, li nga wax ni mu nekk kaddu yoo xamante ne kaddu yu jar a bàyyi xel la ah, yàlla suñu borom dogal yóbbu fa suñu caméra ak suñu micro gis nañ la fa ci biir sociale yi nga xamante ni yéen a ngi koy doxal ci biir yow ak monsieur le maire yi nga xamante yéen ñëpp yéen ay ànd mais taxawaay bi nga xamante yéen yéen a ngi koy taxaw ci diggante Pikine ak doomu Pikine yi tey jii jàngat bi nga xamante ni tey ji am na fii nii tey ji si stade Amadou Barry tey jeunesse su Pikine yi ji yéen ban conseil nga leen di jox tey jii waaw mais tu sais tu sais autant que grand serigne de Pikine Parce que qu'actuellement, je suis le grand Serigne de Pékin. Il y a le Dogol Nolo, de l'opposition et de pouvoir. C'est-à-dire aussi, bon, comme tu as si bien dit, Pékin Khalayi dans nos yaro. Khalayi Pékin, Okunyok Yanan Khalayi. Khalayi Pékin, nous nous fait avec Kilifa. Top sur nos temps. soo gisee coow li coow li coow li même luy am yëpp doo si gis xale yi Pikine xale yi Pikine liggéey la ñu xam daan seen doole nekk gëm yàlla su dee seen soow mi ñu naan su dee soow rek ñu naan su dee seen ganaar ñu naan donc je félicite vraiment la jeunesse de Pikine je félicite aussi la jeunesse de Guédiawaye sincèrement je suis très fier de ma jeunesse honnêtement ñu ngi sant yàlla bu baax parce que xale am nañu yar xale tegu nañ si yoon du nu ay yàq du ñu xeex du nu xulo donc c'est à féliciter les jeunes du département de Pikine vraiment loolu kontaan nañ ci euh, euh, le Serigne de Pikine. waaw grand Serigne de Pikine. donc je vous remercie infiniment yéen tamit yi vous aussi c'est à féliciter parce que barki dem gis naa leen Touba là ou je suis. fu diine nekk vous représentez le diine yéen a ngi taxaw si diine bi te diine rek nag moo am leneen yëpp amul solo li am solo si l'islam ku jàppul l'islam jàppoo dara yàlla moom rek moo fi nekk leneen nekku fi ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. ana xamoo ma yow. alhamdulilahi rabi alamin dañu delloo tam di gën a santaat yàlla baax a baax ah bis nag ñëpp xam nañ nag li waral bis bi moo di organisation bi ñi nga xamante ne nag ñoo gérer organisation baa ngi nii kilifa gi maa ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar. bàyyi ngeen jàmm baax sant yàlla bu baax alhamdulilah taxawaay organisation bi tey ci bis bi. waaw euh, bon euh, ñu ngi koy rafetlu euh, di ci sant yàlla ndax mbiri yàlla moom mbiri yàlla la rek. ak euh, lu mën a xew rek mbir yàlla lay doon ndax fi bàkk yàlla ak julli si yonent bi moo ñu tax a jóg leneen taxu ñoo jóg keneen nag ku fi def leneen nag kooku yow la me mais ñun li ñu engagé mooy dañoo ñëw pour bàkk yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu kese kese kese mooy mëbatu bés bi te Sénégal fu mu ne ko soxla dafa soxla ñaan Sénégal dafa soxla apaisement moo tax nag yaa yaa njortu nañu kilifa yi fi toog kilifa yi fi rot si muy sëtu Cheikh Seydi Ahmed Tidiane yi fi ñëw ñu yaakaar leen yaakaar loo leen ñu jël suñu nekk suñuy wasila jàpp nañu kat bu ñu dënn yi tàngee jër ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah yàlla xam na ni bu ñu ñaanalee Sénégal dina nekk si si si jàmm donc loolu moo waraloon jotaay bi incha allah rabbi di ñaan yàlla ñëpp teewlu yàlla nangu jotaay bi ñaanal Sénégal dëkk bi nekk si jàmm ak salaam keneen nag ku fi wax leneen yow la engagé ndax fii bërëbu yàlla la yàlla lañ fi bàkk gërëm euh, ak ak euh, yàlla daal la fi am ak julli si yonent bi bàkk yàlla julli si yonent bi moo fi am leneen ku ko fi wax yow la engagé waaw ndax jotaay bi nag jotaay yàlla la waaw tey jii tey ñu gis ne am na ay quelques mots jotaay yoo xamante ni wax nañ ko tamit ci biir jotaay bi waaye yaakaar naa ne bis bii nii ku ko xool xam ne woote wuñ fi danaay politique woote wuñ fi Macky Sall woote wuñ fi Sonko woote wuñ fi kenn Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam moom lañ fi voté tey yéen tamit moom ngeen jël tamit di ko doxee tey jii yéen ñi nga xamante ni yéen yéen fi nekk tey jii te képp ku ñëw yéen koy dalal ngeen bokk ci organisation bi li nga xamante ni tàmbali ngeen ko depuis ba léegi tolluwaay beeg taxawaay bi ci lan ngeen ko jëfe waaw comme euh, li nga wax si si njëlbeen ay kàddu yu fi jub ñun loolu engagé wuñu ñun dañoo organiser wu euh, politique guñu suñu yoon nekkul ci politique en ce moment parce que dañoo ñëw si bërëbu yàlla donc nag dañuy considérer fi jamaa bi taxaw foofu jumaa la te loolu lañ ko jàppee donc nag waxi politique ku ko fi jëpp kooku yow la engagé engagé wuñu fii dañ fi woote yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc organisation bi nañ ko daan defee daaw daawaati jéeg moom la amee ren dara changé wu si képp ku def ta yàlla tax sant nañ la gërëm la képp ku nga xam ne am na ñoo xam ne ñi ngi te lu lu gën a rëy ci xadra bi ñoo ko fi def donc nag wax dëgg yàlla ñëwuñu fi pour politique rafetul te ñaanuñu yàlla ku fi nekk partisan ku ci nekk am na foo far donc fi ñu far nañ ko denc ba xadara bi jàll ndax loolooy dëgg ndax fii kat nag bërëbu yàlla la loolu la woote te loolu la ñuy dëgg di woote asalaamaaleykum wa rahmatullah kontaan nañ ci jërëjëf yéen a ko gis liggéey bi moo ko laaj léeg-léeg toll foo xamante ni yaram bi day tàng mais bu yaram bi tàngee lépp rek loo xamante ni bis la papa nag laa dendal nii nee naa ko ne fi mu nekk nii tey gën a gis nag doom ñu ne ne xeex ak bàyyi waaye nee na ma loolu du ci am suñu papa ambulance dañ koy bàyyi rek moom mu nuyoo ñu am loo xam ne as tuut luñ koy laaj ci bis bi papa ñu lay ziar. ma lay delloo ziar moom fees naka coono yi mbaa yaa ngi am jàmm. mbaa yaa ngi am jàmm. doom ju doy war doo doxalal. <laughs> dégg nga nee na doom ju doy war waaye dëgg la mais papa ñu xool ni tey bis bi. mu doon bis boo xamante ne bis bu jéggi dayoo la ci biir stade bi tey ñu gis ni sécurité yi ñëpp ku ci nekk def nga sa biir sa wareef ci bis bi yow tey jii ñu gis la mais taxawaay bi nga xamante ni tey jii def ngeen ko tey ci bis bi papa tey taxawaay bi est-ce que mën nga ñu see dëttal tuuti. waaw alhamdulilah rabbil alamin ginnaaw bi ñu sant yàlla jull ci Seydina Mohamed xam nga tey lii du bésu àdduna ndax lii bésu dëgg gila la lii bésu Seydina Mohamed bésu jullit yi la tey boo fi ñëwee du du murit ngay gis du tijaan du keneen ñëpp fi ne ay jullit yëpp ñoo fi daje tey ngir lan ngir jëmm ju tedd ji ci ay digleem ñu fi sàkku si lu bëree bari kon bés bu mel nii ku fi ñëw rek da nga ñëw pour toroxlu delloo sa sa borom sa sa xel ci sa borom ñaan ci suñu borom gën a def ci réew mi jàmm ndax coow li bari na waaye yàlla na yàlla defar lépp di ay tawfiix yaakaar naa ne ku dégg kàddu yi xam ngeen ne sama papa kat la mu wax kon leer na nee na jàmm am ci réew mi waaye nag am na loo xamante ni doo dem te du ma la ko laaj ana suñu waaji gàkku. waaw président man d'ailleurs xam nga bu yebalee ay rakkam ku mel ni monsieur le maire Ahmed Aïdara man ma nekk garde rapproché bi ma teew fi daa mel ni ay tànkam teew na fi te bu doon sagoom mu teew fi waaye xam nga daanu dajul suuf ba tax na moom mu. absenté waaye mu nekk loo xam ne méttit na ko lool waaye nag daf ne ginnaaw bukki mbaar te ay rakam teewal nañ ko fi moo tax daal mu sant bu baax di rafet lu bés bi di ñaan yàgg koo fekkee ba lépp luñ ci yéene rek suñu borom mottali ñu ko ci barke Seydina Mohamed. moom tey jii sax bu fi yabul woon sax amel RRA keneen keneen ñëw fi woon yow nag boo fi ñëwee rek daanaka moom jëmmam teew na waaw loolu moom euh, euh, xaayaan ku dégg séeréer ndax ku ma xam xam ne man ak moom. bés doxul suñu diggante kon su ma teewee rek mel na ni teew na yàlla yàlla def jàmm. kontaan nañ ci ñuy gën a kontaan teew. alhamdulilah. waaw salaamaaleykum. الله am naa la. daanaka jaay nañ ñaari baay baa léegi nii ñaari baay baa léegi nii ama jëril muy kii quatrième balaa yi nii ah non maa ngi nii maa ngi borom dama gi. ah dama ñu ñëw fii. mu jàll mu jàll mu jàll. ah bi may ñaar gan. bi mooy ñeent mooy gara doon murid dafa wóor wala wala wala demee nag waaw ñëpp ay baafaal lañ ñëpp ñëpp ay baafaal waaw bii mooy cinquième bana cinquième bana lépp di sëñ suñ fara rek waaw lépp

lépp ñun ñëpp bu tuddee noo ko yàlla ñun ñëpp ñun suñu baax la ñuy sàkk yàlla suñu borom dafa rafet li ñu def ngërëm yàlla rek la ciy sàkk آمنا يا رسول الله ama jëlal taal bi sëñ Tuubaa def lool ama do xara mu pare da Baay Faal ni moo lay wane àdduna ñëpp ñëpp benn lañ ba pare jox ko mo àdduna am solo ah waaw. daal di sëñ Tuubaa bi de jàpp bi rek. ñu fexe jàppalante bokk ndey ne lii yëpp du kenn Yonent wa sallam la rek moo ma waral lii yëpp du murit bi du nekkul tijaan a jàpp na nga ñëw jàpp si te yàlla rek tax. waaw waaw loolu moo gën a